nuyu nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV ñoo man mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu ko amalee saa su ne ku ni Dakar Buzz nag xam ne moom lépp rek lu xew ci Sénégal wala ci àdduna ngal këpp dañ ciy daal dugg suñu loxo xool yi fii naka la demee pour mën ci indi jàngat wala ay solution ñu toog ak benn ndaw boo xamante ne li ko dal dafa métti lool mais dina expliquer lépp li nga xamante ne rek moom moo ko dal ci anam bu mu ko dalee à travers Dakar Buzz TV si maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog am internet Dakar maa nekkoon sama lan moo la dal boo ko mën a expliquer léegi sama nijaay dafa dëkkoon foofu nag si kër gi. léegi am depuis daaw. léegi lu mu commencé dama jéem a sàkku. tout le temps mu may jéem a tëddee hmm. léegi ku ma ko wax du ma gëm temps ma leen koy wax parce que bu ma ko waxee ñu ne da ngay fen loolu dañ kaa ma dem ba sonn sama mbokk yëpp wax génn foofu noonu di màggal Tuuba boobu laa fa pour bëgg di yegg sama kaw tout temps. foo dem wax ko rek dañ lay weddi duñ. waaw. ma ko njëkkee a nekk moom mënu laa la def loolu. sa nijaay boobu moo la yar. moo ma yar waaw moom si biir kër googu la dëkk. moo la yar ba pare euh, depuis un an moo lay tëddee di la. Hmm. est-ce que mës nga dem police wala dem waxtaan ak kenn ku nekkul ci sa famille. dem naa mës naa dem police mais bi ma demee da leen a woo ñëw leen loolu amut. suñu la police yi jéemu ñoo dem hôpital pour nga am certificat médical ñu xam ne li ngay wax. non non dañoo woo ki ma yar ki xam moom laa dëkkal ci biir kër mu wax leen ni leen loolu mënut a nekk kii mënu koo yar ba pare di ko def lool. tante mosul saytu sa wér. non non. yaa ci ñaata at. man 17 ans. da ngay jàng wala. non non ci kër gi nga yaroo. waaw. ana say waajur. sama yaay mi am trois ans la gay xawma ko. sa papa sa yaay dafa teel a génn àdduna amoo ay frère wala ay sœur. am naa benn seex mi damaa xam fan la nekk. sa tante bi la yar xanaa bokkul ci sa famille. sama yaay ñoo bokk ndey baay. moom mënula wax fu sa seex boobu nekk. sa tante boobu euh, sa nijaay ba borom këram la. déedéet rakkam la ba léegi. kon ki la sàkku sa rakku yaay la. Oh. bi mu ko commencé nan la la dikkee daf la ñëw fekk yow kese yaa nekkoon ci kër gi wala. non non dafa fekk man kese man ci kër gi. man xam li muy dem ci xar dafa bëri léegi après mu yónni ma ma dem ñëw indil ko léegi bu ma ñëwee ma ne ko garaaw damay dem tëdd ji léegi après bu ma tëddee ci la ma fekkee ci biir néeg bi dama ko jéem a def ma yaakaar ci dafa am lu bëgg wala lu mu ma yónni wala dara ndakate boobu loolu la boobu daf la bëgg a bi nga dawee dem Touba kan nga fekk ji tuubaa Touba xaw ma fa woon kenn dama daan ne foofu après bu guddi jotee ma dem fi jumaa bi tëdd jumaa ji nga daan fanaan. waaw. nga nekkal fii Dakar say mbokk. non non kii damaa mos a dajeeg moom rek après mu gis ma ma sonn après mu waxtaan ak man léegi ci dama indee ci benn xaritam bu dëkk Dakar fii. ci loxo yooyu nga nekk. fi nga nekk nekk nga ci sa jàmm amu fa. non non amul benn problème. est que jot nga dem hôpital pour xool sa wér yaram ba xam dara jotul. non non non dara moom moom tout pour yegg sama kaw. jotul yegg sax. lan ngay ñaan ñi nga xam ne mooy autorité yi ba mën ci dox ak tamit police comme que dem nga fa mais sa tante def ne dara jotu la ñooñu musul kooku musul la sax. kay. mënu ma kaa wax dara ndax sama yaay ñëw bokk te lu ma ko def tamit sama dara rek laay taxaw loolu moo tax. da a def comme sa famille bañ a porter plainte wala bañ a gëm lim lay def. non comme ça bëgguma ko for feneen dama ko bëgg noonu rek ak yàlla. instant bi yow lan ngay ñaan parce que xale nga yaa ngi liggéey. maa fi ma doon fi ma dëkk laa doon liggéey damaa nekk foofu. dafa am bi ma nekk ba amee sept ans laa commencé am benn ku ma ku ñu dëkkandool koy ku yor foofu soxna après fa laa daan yéen léegi ci laa demee bu mujjee man yooyu defar yooyu après ma doon koy foofu. bi nga ñëwee Dakar ba léegi yëngu ci yëngu ci daal. déedéet. sa nijaay boobu moom mu ngi Kaolack actuel. lii Kaolack waaw police la sax. sa nijaay boobu police la moom mi la xam ne moo la bëggoon sax. bi ñëwee fii ñoom jotuñu la wër pour xool ci loo nekk bi nga dawee génn na sama benn xarit day àbb téléphone ñoom bu may ñëw sama téléphone dañ kaa nangu. am eh, eh, dama koy laaj boo xam ñu may seet wala dara ñu ne ma ñii lijjantiwuñ la sax duñ toog sax seen xel ne si yow wala dara. ñoom bi nga ñëw fi ba léegi waruñu la seetuñu la woowuñu la. en tant que xale naka ngay dundee loolu gisoo sa wajur bu jigéen nii sa bu góor wala kenn ko bokkal ndey ak baay sa tante yar la sa nijaay bëggoon la sàkku nan ngay dundee situation bi. loolu métti na nga xam nan laa def noonu loolu ko wër laay continuer. instant bi lan nga bëgg ku la ko jàppalee. ci liggéey wala foo nekk wala fi nga nekk doy na la. non fi ma nekk moom benn faral wax dëgg yàlla ay nit ñu baax lañ ndax maa fi ñëwee ba léegi xalaatuma daal loolu dama dama koy dem ba yenn saa yi dama koy faat. tey lan nga bëgg ko la ko jàppale ci liggéey nga bëgg wala. lépp rek loo xamante ne bëgg nga nit ñi jàppalee la ko à travers Dakar Buzz TV ñi nga xam ne ñooy bonne volonté yi ñu ngi lay déglu te dinañ la seetaan lan nga bëgg jamono ji ñu taxawee la ko. man kay naa gis mu bokkal ma gis ko. instant bi gis sa famille papa wala gis sa papa rek nga bëgg. <laughs> mosuloo ko gis ba nga juddoo. ba ci sa seex boobu tamit mosuloo ko gis. sa tante mosoo waxtaan ak moom ba xam sa seex boobu sa papa bi muy dem moom moo ko yóbbu. laaj naa ko mais nee na lañ ko joxe avant wu kenn ci ñoom. ñi bokk sa yaay ndey ak sa nijaay boobu bëggoon la sàkku ak sa tante bi la yar rek nga ci xam. non non am kay am na ñu la waaw ñoom leen ñoom ñëpp mais dañ la weddi. ñoom ñëpp ku mu dem këram nga dem fii mu wax ci laa obligé dem Touba. est bi nga nekkee ci sa kër tante à part sa nijaay boobu bëggoon la saaku yaa ngi woon ci sa jàmm bi nga nekkee sa kër tante nekkoon nga à l'aise loolu moo fa nekkee daan naa fa dund ay jafe-jafe parce man guddi laa fa daan ñëw foofu tëdd rek moom fa daan yóbbu tey bëgg nga am liggéey bu baax di ko liggéey si nijaay boobu lan nga koy wax bu dee mu ngi lay seetaan ak sa mbokk papa yi nga xamante ne yow bëgg nga leen gis nga nekk jigéen du dund lu metti lii gisoo yaay gisoo papa. kàddu ngay wax yan ban appel ngay lancé pour ñu lay seetaan. xam nga sa papa mu tudd. Hmm. même santam xamuloo ko. Hmm. yow ban sant lañ la jox bu sa yaay. Oh. amoo benn souvenir wala benn papier dara dara ci sa wajur. Hmm. bëgg leen gis wala bëgg ku takk ci sa wajur bu góor rek loolu rek nga sa ngay sàkku. am internet Actubuzz TV gis ngeen cas ba lañ leen indiloon ki nga xam ne moom mooy Soxna Ndiaye amul 17 ans ñàkk waajuram bu jigéen ba muy dund ba léegi xamul waajuram bu góor nijaayam bi nga xamante ne moo bokk ak yaayam ndey ak baay depuis xale ba léegi rek di ko jéem a sàkku muy dund lu métti loolu ba tax na mu dajeeg soxna soo xam ne su baax la mu dëkk ak moom fii ci Dakar muy sàkk na ku ko dimbali di sàkku ku ko jàppale bu baax a baax ba mu gis nga xamante ne mooy famille waajuram bu góor ndax li muy dund métti na lool ci xale bu ndaw gisoo yaay gisoo kenn rek ko ko mën a jooyee ñuy ñaan képp koo xam ne rek voix bi am na lu mu lay jox wala tur bi sax am na lu mu lay jox wala li nga xamante ne mooy signe yi mu joxe ci waajuram bu jigéen boo ko xàmmewee rek nga daal di reconnaître sa doom bu jigéen bii nga xam ne mu ngi lay wër ñu leen jox di daje ba beneen yoon incha allah ci beneen numéro merci 25고